baat bi nga xam ne boo ko jëloon teg ko ci balance nga jël asmaanu juróom-ñaar suufu juróom-ñaar jël mboolem lu yàlla bind teg ko ci balance baat bi langu ko muy baatab laa ilaha illallah ñu ubbee ko suñu wax tey ci bés bi nga xam ne bési tiis la bés bi nga xam ne mën naa wax na jullit ñëpp ñoom ñoo ñàkk ñuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi di wax ne bànqaas bu mag a mag a mag moo fi fàqeekoo tey si lislaam nit ku baax borom xam-xam borom njub ku dëggu ku nekkoon tiitari lislaam muy Seydi wa Habibuna Cheikh Moustapha Gueye ñu ngi leen koy jaale di koy jaale umma lislaam bi yëpp di wax ne tey senegal ñàkk na nit ku am njëriñ si lislaam bi nit ki nga xam ne daf loon défendre lislaam daloon doon défendre tariqa tijaniya waaye daloon doon défendre tamit Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu mën naa wax ne jullit ñëpp war nañ ko mën a jooy waaye alxuraan tamit dana ko jooy fu weeru koor woon jotee jotee fu weeru koor maanaam jotee da doon ubbi téere yàlla bi di jàngal jaamu yàlla yi di leen firil wax yàlla googu noonu firin goo xam ne macha allah ku amul dégg-dégg boo déggee sa dangay am dégg-dégg ngir xam-xamam bu rafet nit koo xam ne fu ñu waxee gudd yonentu bi sallallahu alayhi dana ko taaral xamal jaamu yàlla yi kan mooy muhammadu rasulullah xamal leen kan mooy yonentu bi si zahir waaye xamal leen kan mooy yonentu bi si baatin kooku moom leen ñàkk tey ki nga xam ne tey tiitaru tariqa tijaaniya la di jullit xaqan di taalibi Mawlana Cheikh Tijaani radiyallahu anhu xaqan kon ñun duñ ko jooy waaye dañ koy ñee parce que Cheikh Tijaani Serif radiyallahu anhu wax na ne suma taalibe bu génnee àdduna ba ñaari malaaka yi ñëw di koy laaj maa rabbuka wa maa diinuka wa maa kitaabuka wa maa xiblatuka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy ñëw teew buñ ko laajee loolu ñu koy laaj yonent bi sallallahu alayhi moom mooy taxaw si palaasam tontal ko ànd ak ñeenti saxaaba yooyu noonu muy Seydina Aboubacarin Seydina Umar Seydina Adi Seydina Ousmane kon loolu yaakaar bu rëy rëy rëy rëy la Cheikhu Tijaani Sërif radiyallahu anhu wax na ne tamit ne taalibeem bu génnee àdduna kenn du ko xisaab kenn du ko iqaab te amuñ sikk na xam ngeen ne Maulana Cheikh Moustapha Guèye bii nii xalifa la si xalifa Maulana Cheikh Tijaani radiyallaahu anhu loolu yaakaar bu rëy rëy rëy na kon maa ngi koy jaale ummat islam bi yëpp di koy jaale famille bi yëpp maam lu dalee si taaw bi ak mbokku taalibe yi ak waa faydu bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaale maanaam ki nga xam ne moom moo fi génn tey muy suñu waajur di xaritu suñu waajur nekkoon kër Cerno Assane Dem ba mu nekkee si Baye gannaaw moom tarbiya Baye boole ko ak Cheikh Assane Dem radiyallahu anhu mu nekk foofu ñu nekkoon nekkoon bu rafet ba àdduna bi yëpp seede loolu mu nekkoon nit ku baax nit lu bëgg ku bëgg lu baax ku dox si lu baax ku ñàkkoon caaxaan koo xam ne lépp luy faw daaw mu mbiru caaxaan daf ko sori moo tax képp ku koy jege rek maanaam royukaay la ñu ngi ni jaale maanaam bokku taalibe yëpp di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla xare aljana yàlla na ko jëfam yu baax jiitu si biir bàmmeelam yàlla taas ñu si ay barkeem bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yéen it waa presse bi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di ñaan yàlla seen télévision bii nii yàlla na ko yàlla yëkkati si kaw yàlla bu ngeen dellu gannaaw bi jaahi rasulullah sallallahu alayhi wasallam li ngeen def ñu koy defalu bu baax wa ma zalika allah bi azizin Cheikh Omar Hassan la wassalaamu sama lépp la waaye maa ngi waxe tey ci baatu profeseur gi sama professeur la sama maître la sama professeur la sama lépp la ndax këram gi def ko ubbiloon ñëpp fii ñu toog tey jataay bii ma toog tey bi ma fi mujjee toog ak moom dinañ ci ñëw ci ay ayatul quran ñu doon wër muy leçon bu ma war a jox ma bàyyi ko sama bàyyi fa samay njaboot bàyyi fa sama borom kër bàyyi fa sama ay sët ñëw toog fii jotaay bi ma mujj a toog ak fii laa toog mu toog fii sama ndeyjoor di ma wax di ma wax di ma wax ba nu dese benn ci lu doon ci biir mu ni ma wër ko ma jàpp te ñëw dafa ne ñokket jóg di jàpp ma daal di dajale samay bagage ak sama saak booba sonn naa daal di ne xaaral ma góor gi exercice yi mu mën nar a dëkkee jox fi mu nekk damaa am liberté dootuma heure bu ñu jox exercice taxawuma kooku wër naa ba sonn rocciku naa. parce que génn naa koñ bi ba tourné jàkka ji bi may tolloo buntu jàkka ji ci la ma xale dab ni ma kaay wuyu ma ko ku ma woo mu ne ma maam bu góor ma ne ko tey rek laay dee daal ne ma yow may jàpp ni la xaaral ma ñëw wëral li ngay wër xanaa da nga koo gisul ma ne ko gisuma ko mu ma ma nga place sàngam. ma daal di koy génne waxtaan diggante bu gàtt moo tax ñëwaatuma ci. mu génnee ko ma mottali ko ba léegi leçon boobu mi ngi ma yor ci bind bind ko ci bopp téere bu ma ngaa bu bési keroog fii muy téere téereem bi mu taalifoon euh, Nahjul Qawim fi fiqhil islamiyyi salim ñu bari lu ñuy wax ci moom nag lool li nu mën a wax ci moom mënuñu ko jeexal waaye dafa baree baree baree bare ñoo xam ne itam li nu ci dal moo leen ci dal macha allah ñoom ci seen ñëpp li ci waay wax rek bàyyi na ci lu ko ëpp waaye daal xam naa ni alquran doon doon na wax ni minal muminina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila dafa bàkk bokk ci gaa ñooñu yàlla doon wax ni fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir sunu borom bi tabaraka wa taala nag moo ko baaxe lii baaxe gi mu ko baaxe lii it nag lu mu la li mu doon def lu mu gëm la ku baax la ku dëggu la ku bari xam-xam la waaye nag la jibril waxoon sallallahu alayhi wa rek ni ko dinaa fi del si sa gannaaw danaa fi yëkkatee nangam ak nangam bokkoon na ci li mu fi doon jëlee mooy xam-xam du ne xam-xam bi lañ doon tonni di yóbbu waaye borom xam yi lañ doon yóbbu yóbbu gii yàlla di yóbbu borom xam-xam yi nag ci la xam-xam di demee benn ndàmb nag demete ci ñun am ba waxoon na ne borom xam bu demee bibliothèque lakk na beneen bibliothèque la nu lakkalee tey la nu tàkkalee tey macha allah waaye lu nu ci mës a am yal na suñu borom barkeel ko waaye moom itam lii ma mas a jëriñ ay doomu aadama ci xam-xam yal na suñu boroom fay ko ko jasaahullahu anna anil islam wa anil islami ko yàlla fay umma bi ñàkk nañ ko nag waaye ñàkkuñu ko ndax bàyyi na fi ay jeexantal bàyyi na fi ay jeexantalam ni mu fi bàyyee macha allah njabootam defoon nu boole woon nu ci njabootam ndax benn jataay bii fii ma toog tey njabootam toog ñii eh, ay soxnaam doon toog ñii ñun ñëpp ñu bokk toog fii def na nañu loolu lu jege cinquante ans ndax toog na nañu ko quarante sept ans yu mat yoo xam ne dañuy toog fii di jël te def nu daan jàngale lu bari ci imam Malik ibnu Anas ci ni mu daan jëlee ji xam-xam mu di jàngal fii fiq di ñu jàngal siira di ñu jàngal taarix xam-xamu alquran bi nag nga xam ne jàkka ji ñuy xale yu ndaw di motaguñu ay mukallaf di toog ci jàkka jii di ko wër muy tafsir quran ñu di ci jëriñu addina bi yëpp di ci jëriñu ñaata junniy nit la tafsir alquran fii ñaata junniy nit ñoo jëriñu ci tafsiram ci ku fi ñi fi teeg ñi fi doon toog nag ak ñi nga xam ne tooguñu fi woon ñu ngi doon dégg par ñi mu doon jàngal par distance ba bi internet amee ñi loola gën a yokku njàng par distance gën a jege yooti far gën a jege yoo moo xam ci rajo bi la toog di ko jàngale ba télévision bi ñëw mu toog ci télévision bi di ko jàngale internet bi yegg si mu toog internet bi di ko jàngale yal nañu ko yàlla fayal barke bi jàngale bi nga xam ne moom la doon jàngale diine te sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne xayrukum man taallama alquran wa allamahu xeet wi nag ñoo ñàkk ñëpp nag ñoo ñàkk waaye nag noo ngi doyloo borom bi tabaraka wa taala mi nga xam ne lu mu fi jëlee lu ne moo fa wuutu loola te lu mu wuutu fa béréb lu nekk moo fa gën la fa nekkoon li sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni wa isa saaltumullaha fasaluhu firdawsa fa innaha alal janna wa awsatul janna wa minha tafjuru anharul janna ne su ngeen di ñaan yàlla aljanna na ngeen ko ñaan firdaws ndax moo gën a kawe ci aljana yi gën cee diggee te mboolem yoolu yent yi wal di wëndeelu ci biir aljana yi ñu ngi balee ci aljana yi firdaws kon dañ koy ñaanal firdaws yàlla na bokk ci ñu ba doon wax naan amantu anna al axira la budda yawman aatiya kullul xalaiqi xaadira kullu saa ibadiya mawqifin ma azama lam tax fa minhum xaafiya walhawlu fihim qad shara walsamsu minhum daaniya laa dilla illa dilluhu fihi nufuusu raadiya busra li nafsin amanat tati bi nuurin saaiya حوض الحبيب وقد روى كل القلوب الزاكية أكوابه من أدها أدى النجوم الضاحية عند انتصار تخائف لم تدري نفس ناهية foofu nga xam ne mooy xawdul xabiib yi yàlla na borom bi tabaaraka wa taala def muy suñu rendez-vous moom ëllëg ndax sallallahu alayhi wa sallam daf ne woon ala inna mawidakumul xawdu xanaa xamul leen ni sama rendez-vous yéen ëllëg mooy kawsara béegu kawsara képp ci yéen ku fa bëgg root si nag na fekk làmmiñam ak loxoom ci lépp loo xam ne yoonam nekku ca bokkon na ci ay jàngaleem nag mu jàngale fulla ak fayda di jàngale ak ñite di jàngale am jom di jàngale nangoo sàkku xam-xam te nangu caa sonn waaye moom la mu doonoon te gëm ko mooy roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci tasaare xam-xam ak joxe ko joxe na ko gën jaarafeti joxe na yàlla na ko yàlla fay gën jaarafeti fay yàlla ko yàlla fay te wutu ko si njabootam fépp fi mu féete woon njabootam yàlla na suñu borom féete leen fu ko gën a yaatu te fa nga xam ne foofu la ñu dawlu ji it antum lana faritu nahnu lakum tabaun rek anasallahu waxsatakum wa amana a wa jaala aljannata miadan baynana wa baynakum yàlla na suñu borom fat ko ci aldina firdaws yàlla na suñu borom utu ko ci njabootam liggéeyal na lislaam liggéeyal na xeet wi liggéeyal na njabootam yal na yàlla taxaw leen yal na yàlla boole ñu yiir yal na yàlla bool ñu sàng sutura rabbana axfir lana wa li walidina wa li ixwanina allazina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina xillan lillazina amanu rabbana innaka raufun rahim alaaj Moustapha dañ koy ñaanal ñu ñaanal njabootam yal na ñu ko yàlla fayal